Bienvenue sur Salam Vision. التجاني أدي البيان لأليا بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki internet bi mbokki réseaux sociaux bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal wax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala bu boo nee jégal di nuyu mboolem koo xam ne tabarakallahu mi ngi ànd ak ñun Salam Vision ànd ak ñun ci programme yi tey nag ñoo ngi fii ci Wakam cité Cheikh Seydil Hadj Malick Sy bu ñu waxee Cheikh Seydil Hadj Malick ni mooy bàyyi Serigne Babacar Sy doy na waaye sëtam ba di Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum dafa ne ara malikan fii sultati min jalaalihi wa min ajzi arastaqaar bi qaalihi bu ñu nekkee fii nag cité Seydil Hadj Malick bi ni ko sëtam ba waxee nekk na ci kër ki nga xam ne di ki nga xam ne dafa ànd ak coordination des jeunes Tidiane fii ci Wakam fa séenee fedd di kóllëre seen digganteeg seen maam seen digganteeg seen baay waaye seen digganteeg seen sëriñ su waxee maam Omar Gueye ñoo xam aussi que sëriñ abuna Abu Bakri wa in kaana fi qabrihi radina bihi cheikhan ila axri dëhri sëriñ Cheikh moomu nag moo bàyyam yooyu di sëriñ Babacar Sy ñoom nag maam Omar ànd ak ay rakam ay soppeem ay xaritam ak coordination des jeunes Tidiane fas yéenee delloo njukkal fas yéenee dolli kóllëre benn yàlla boole ak Cheikh Seydil Hadj Malick ñu fas yéenee nag ànd moom moo ni programme bi demee ak ni programme bi cosaanoo ak kañ ak fan lañ ñu ànd ko ak moom incha allah rabi bu ñu juumul le douze mars allah rabi waaye ñu bàyyi ko rek moom mu tàmbale mu tàmbale lu ci war ñu kon maam Omar bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Oustaz Diarra ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen la ñaanal la yàlla yàlla taxawal la nit xam na ci kër si Seydi Hadj Malick xam na tamit digganteeg sa digganteeg Serigne Cheikh Niass Al na waaye ay doo yi nga xam ne ñoom la fi yàlla bàyyi lan moo sabab bis bi nga xam ne tey moom la ñuy jëm tamit moo waral nga xam tey moom la ñuy waxtaanee. waaw bés bi day oustaz euh, li sabab. suñu sëriñ bi suñu soppe yàlla yàlla dolli leeram muy sëriñ moo ci joxewoon ndigal mat na ñaari at ñu euh, toogoon ci kër sëriñ Cheikh Tidiane Sy Maktoum te ba néeg ba ñu Omar Samb waxtaane fa diggante kóllëre bi doxoon diggante Seex Alaaji Maalik ak lébu yi waaw kóllëre boobu te doxoon ak Cheikh Alhaji Malick ak lëb yi ku ñuy wax Ibra Seck moo doon argentier bu Cheikh Alhaji Malick yoroon euh, moo doon moo ko doon toxal lépp lu jëm ci mbirum finance Ibra Seck boobu il fut maire de Rufisque ah góor gu ñuy wax Jibril Kay moo dalal Cheikh Alhaji Malick te tuwaawoon bokkaan la cosaan góor gu ñuy wax góor te Dakar rue de Denain mm. wala si Alhaji Malick dëkkoon mm. ak euh, maggi lébu yu bari mm. ah euh, euh, mission ba taxawaay boobu nag sëñ Babacar si mottali ak mag ñu jamonanteel dem na ñoom Thierno Amath Mbengue ñoom bëgg al yàgga Diagne ñoom alaaj alaaj Ahmed Lamine Diène ñoom góor gi alaaji Tamsir Samb ñoom góor gi Euh, góor gi sant seen hmm. ñoom alhaji Buubu Njaay Sàmb ak Monsor hmm. sëñ Babacar nag mottali hmm. kullere googu doxoon diggante lébu yi ak sa alhaji Malick bi ñu ñëwee ay rakkam ak seen i baay yi fi nekkaloon ñuy doxal koogu kullere ak sa alhaji Malick léeg-léeg ci dañu euh, dañuy ñu dañuy fàtte ne euh, fi mu doon fi mu Sénégal gëpp mm. mu amee fu mu am kër mm. fu mu gudul caawal wakkaan jii la fii kër alhaaji mbay Diop mm. waaw kuréel googu nag ñu waxtaan sax sëñ Pape Malick mu ne Baye Omar tey ñoo ànd feddeel suñu kuréel sëñ Babacar si lay ñëw fii wakkaan euh, tabaarakallaahu def fi journée bu rëy waxoon ni nag misiroon nag ñu defaat ko yàlla bay ñun nag ñu toog waxtaan ci ne bés bi dañu koy def pour di ci ñaanalaale sëñ Pape Malick ñu ko initié ndaxte moom mission ba mag ñu doon dox loolu la doon entretenir muy relation bi dox suñu mbokk mbokk lépp yi ak parce Alxaaji Malick mottali na ko léegi nag ñun si la ñu euh, fas yéene ci kàttan le mars deux mille si euh, bénédiction famille Cheikh Al Hadj Malick yëpp. daanaka ko demal si présidence d'honneur Cheikh Mouhamadou Mansour. et puis Ahmed Tidiane Sall Maktoum. def ko ci présence effective. bu Serigne Mouhamadou Habib ibn Cheikh Tidiane Sall Maktoum. ñoom mu ma moom mooy def waxtaan bi. animation bi. loolu kenn mbay. bu caawaat moo koy def. tàggkat yonent yi bi aju ci xadra bi yëpp dafa dala ñoom Abdou Aziz Mbaye suñu mbokk Samboura Samboura suñu mbokk ñoom Ablaye Saro Ablaye Seer suñu mbokk yonent daal ñoom Maodo Diop bàyyiwuñu kenn ñoom Ndiaye tamit invité nañu ñëpp nga dem bés waaw ah, ñoom Ndiaye nga dem bés bi hmm. bés bu suñu kóllëre bu ñu mottali hmm. ak sëñ Babacar Si ñu ngi ko ànd nag ak coordination des jeunes tijaan bu waqaam te dëkk ca bopp ba mooy alhaaj Omar Ndoye wala El Hadj Ndoye ñoo ñoo yor lépp luy organisation mm. ñuy wax oo nañu mm. fédération euh, des tijaan bu Dakar mm. euh, fédération de Dakar bi nga xam ne boo tuddee Abdourahmane Sarr Pay da nga coordination yi te yi aju ci fédération bi yëpp. oo nañu ñëpp ndaxte ñun ñoo ko bokk. ñun ñu sëñ Pape Malick sëñ Pape Malick bu ñëpp la. Serigne Babacar Sy sëñ Babacar Sy bu ñëpp. li tax nag ñu ñu léegi ñu tànn. ñu tànn ñu tànn sëñ Babacar Sy. léeg-léeg am na. Euh, nit ñi sax yu ñuy wax. ne ne euh, comme quoi sëñ Babacar Sy liñ koy tudd. ëpp li ñuy tuddee pourtant c'est très facile. sëñ Babacar Si montoon na Seexal Xaaji Maalik. ndaxte boo yoree ñaari sa mission am mission Seexal Xaaji la taawu téye ko. moo tax euh, lañ koy lañ lañ koy la ñuy dund Seexal Xaaji Maalik. maanaam moo Si am na baax na yaa waas ak maama tur. Seexal moo wut da lay day doxal mission di doxal mission sa euh, sa arrangement moo tax léeg-léeg sax nga gis nit ñoo xam ne ni dañuy yenn euh, yeneen nit ñoo xam ne dañuy propagande xaw a gàtt xam nekk suñu kër. defe ne daal dañuy doyal seen arrangement di dañu xàmmeewul wala ñuy parparloo. ñuy def day gën a naan Maodo rek. di ko tuddal kenn. Mm. noonu ñi lay wax. mooy ñi nga ne ni. dañuy xeet nit lu Maodo bàyyi. waaw Maodo rek. sëñ bi xaw ma su borom. waaw si rajo Malick moom mooy àll bi. waaw. <laughs> am nay am nay gaynde am nay ngay. am nay ngay. Ah. waaw seen rajo man sëñ Babacar Si la. Ah. moo yore mission Seex Al Hajji man ilal abad. Hmm. loolu la yàlla dogal. ñun nag ñu àndandoo. Hmm. pour liggéeyal Seex Al Hajji man ñu dajale ci ëttu sëñ Babacar Si. Hmm. loolu la yàlla dogal. programme bi nag. mu doon boo xam ne bàyyiwuñu kenn. njabootu Sall Hadji Malick ñun ñëpp la ñu woo. Hmm. boo woowee. Hmm. boo naka ñu ko ñu si en hommage sëñ Pape Malick. Hmm. ñu ko ndeyale maanaam a yi. sunu bàjjan. Aminata si Xalifa. di seexu sëñ Pape Malick. sunu bàjjan si Dabaax. keroog sëñ Pape di ñëw. di di jëkk a def événement bi moom toog ca booram. kenn. oo nañu ñëpp. bés bi nag. Euh, man moom moom encore une wax nga Marine Le Maire amul parrain. Ah. parrain moom ci moom hommage la bu ñuy rendre seexal sëñ Pape Malick si. Ah. ñëpp dugg nañ. Mm. mu mel ni ko yeneen ci awfu bi ah. nag. xatara juma lañu. wala onze bi. place ba bay. mais ñun ñëpp ñoo ñu def xatara mm. mm. moo fa fekk. mu gàtt woo nañu ñett beneen tam a passant li nag benn xeer ñaari picc dañu ba dañ ci profité si si annonce bi xamal nit ne mooy relance bi nga xamee ni moom la ñuy relancé xajara bi ndax bi ñu génn yàlla gën ko sori gën ko jëlam mbés bi mi ñu ñaan ba taxoon yu bari stoppé si la ñuy profité mu doon noos ñu wax ne gan yii di ñëw bu ñu ñëwee yenn suba bi dañu jàng kaami jàng alquran coordination des jeunes Tidiane dina recevoir gan ñëpp ñëw dina añ na nga daan añe na nga daan reer na nga daan reere dalal la fi ñu war a dalal ba ginnaaw tàkkusaan ñu dem ci tànk loolu la wax ne nit ñi nañ ko bàyyi kat ba ca am na ziar boo xamee ne Euh, en passant que moo koy jàngale. Mm. ziar boo xamee ne ni euh, sëñ Abdou Aziz Al Amin. Mm. yàlla na yàlla doon leeral. moo ko moo ko woon. surtout Cheikh Seydi Aboubacar. mayoon ñu ziar boo xamee ne ziar cosaan. Mm. ziar boobu sax am na wax ne moo fi jublu ziar général. ndaxte waxaam la woon Ngor caaray raxti. Euh, ziar boobu dañ euh, dañ ko relancé. ndaxte mm-hmm. mbas mi moo taxoon. mu taxaw sañ affaire yu ko mayoon. Mm-hmm. bu koor gi bu nooree. Mm-hmm. ñaareelu samedi ba. si dañu daan may. waxaan ñu war a yokk ak baal yooyu yëpp. dem daje gaaw a yenn ko. sa ëtt sëñ Babacar Si. sëñ Pape Malick lu fi nee. moo ko doon def. Euh, yàlla subhaanahu wa taala bañ yooyu bu la sa ban léegi président man Ousmane Samba. bu COSCAS. ñu ngi nuyu ko ziara. ak ñamu bokkal organisation xare coordination bi. jël nañu langue ak Seydou Mouhamadou Moustapha Sarr Amin. ba nekk ci kër ga. waxtaan ak moom seet ñu ñuy programme ziar boobu. ñu jox laa leen su bàyyi xel waaj kat pour ñëw. ndax ziar bi ziaru Serigne Babacar Sy la. du ziaru keneen. di ziar nag sëñ Babacar mooy sa Alxaaji Maalik mm. radiyallaahu taala anhu mm. ñu bàyyi ñu xel xam ne nag ñoom ñu ngi ñëw ci lañ bokk mm. te nag ñu leen di ñaan ziar boobu su ñuy defar ci calendrier yi ñu dugal ko si calendrier général bu officiel bi ñu xam ne lii kat alalu sëriñ Babacar Si la euh, ñu euh, ñu saytu ko téye ko ak fukki loxo lii moom di dem si biir ziar mais daal ci kàttal moom ma mën a wax ñu ngi oo ñëpp nee nañu bu ñuy yow nga ñëpp sol lu weex. si mm. sa ci programme bi. comme nag sëñ Pape Malick ñaane woon bu njëkk. Mm. waaw ñu ñaanal ko yàlla. Mm. yàlla dolli leeram. yàlla dolli dolli yërmande ci yàlla sàmm njaboot bu mu fi bàyyi. waaw. kon tabarakallahu ñoo ko déggandoo di Maam Omar Gueye tabarakallahu nekk njabootu Cheikh Seydil Hadj Malick ñu waxee Cheikh Seydil Hadj Malick rek ëmb na lépp mu ànd coordination des jeunes Tijaan Wakaam. fas yéene euh, ñaanal seen sëriñ waaye fas yéene sàmm kóllëre yi sëñ Babacar daan waxee rek. kóllëre yi man topp nag. Ah, suñu mbokk xaadim may. Hmm. suñu wëllëre. Hmm. suñu xarit. Hmm. ah euh, bés baa ngoog. la nga ca daan def. commencé na. waaye boo daan def benn bi yoon maa la sas. defal fukk. waaw na nga daan taxawee. xel bu nu waaye foo defar benn xam naa ne di nga def fukk la ñu ngi am bu passage ñu ngi lay la ziar mobilisation bi côté Pikine Guédiawaye parce que sa loxo lañ ko teg ñoom Pape Mor Lo nekk ca Pikine nag ñoom Jibi Ñang nekk ca euh, euh, Tivaouane Peulh suñu mbokk yi nekk Kaffrine ci bés bi incha allahu yàlla jaayal jëm jaayal jàppale leen. ñu ñëw si ñëw bu sedd. ñu jàll bu sedd. ci laaj leen bu si laaj sax. waaw kon yéen a ko dégg ndaw noonu suñu suñu see suñu xarit boobu di seen xarit Mbaye di sët la daaw boobu jaraaf ziara ko ñaanal ko yéen a ngi dëgëral ko di ko nuyu au passage dégg nga sëñ Mamour Omar Mamour woon na ci bis bi. te xam naa ne yàgg na laa woo te ngeen ñaar benn ngeen tabarakallahu comme ni ko waxee rek le 12 mars incha allah rabbi. fii ci Wakaam ñi nga xam ne ñooy coordination jeune de Tidiane ànd ko moom Oumar ak mboolem kuy woote baatu laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullaah soo seeni rendre hommage seen sëriñ bi di Pape Malick Sy waaye ñaanal seen sëriñ bi di Cheikh Seydi Hadj Malick waaye ñaanal seen sëriñ sëriñ Babacar Sy waaye ñaanal seen sëriñ sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waaye ñaanal seen ñaanal seen sëriñ sëriñ Abdou Walaay Abdou Aziz Dabakh ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi ci biir suuf comme ni nga ko waxee bu ñu xëyee suba daañu jàng alquran karim jàng ko borom subhanahu taala bépp ñëw ci biir suuf yàlla yërëm la kon bu bu ñu demee ba deux heures daal di def euh, li nga xam ne moom mooy añyi bu suuf solu ñoom ñëpp solu lu weex weex la ci taamu ndax weex mooy jàmm. fa séenee ñun ci tànk ba comme ni ko Pape Malick euh, initié woon kon maa Omar am benn laaj rek ñu la bëgg laaj lan moo la gën a marqué ci Pape Malick si. waaw li ma gën a marqué mooy euh, tab bi tab bi. tabe bi tab tab bi ñu doon si soxna Asuka tab bi ma newoon tab bi ñu si sëñ Chateau Diagne si gis ci soxna Asuka gis ko ci sëñ. moom la dafa am benn mag bu ma mas nettali benn wax nee dafa doon laajte kan moo gën a tabax si kër Cheikh Al nee na mu dem seet di maam am ne ah man dama njort na yaa gën a tabax si kër Cheikh Al Hadj ne ko waaw demal seet ji Mansour mu ndaw tabe la ñu dem seeti sëñ Mansour borom daal sëñ ba sëñ Mansour ne ko dem waaw daa ne leen demal tabe waaye demal seeti sëñ Cheikh Tidiane si moom tabe mu dem wax ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh ah, man soxna su kanam tabe ndax fu ma mayee mu dool mu téye yu mu dolli kon alquran li wala bëlam tey yoo xam ne ah. si sëñ Pape Malick daralu tos dafay joxe joxe joxe joxe ba buy ñibbi sa du dese dara li may wax ab si seen mooy dëkk moom saara mooy dëkk keneen mooy dëkk loolu manqué na si sëñ parment lu kilifa toog loolu def naa boobu constat dina toog a gis borom barke yi toog toog di xaar mu am juróom-ñaari nit yu war a taxaw fële di xaar pour yeesu jalwaat na man ñi leen ma fi bàyyi xool ma ñale loolu gis naa ko ay yoon yoon yoon man mu doyee di ñu nga xam ne damay dugg pour benn parti yu génn toog naa fekk fa ay kilifa ñu ne ah mu ne toog lu ma marqué la ci mu ne man ñaama fi bàyyi njabootu sëñ Babacar si moo fi bàyyi beneen bi cofeel am si sëñ si. cofeel bi mu am sëñ Babacar cofeel bu mu am ci moom. Mm. defe naa ne waxuma na fay na ko si cofeel. waaye bu ko fayee itam defe naa ne mu ngi koy wis. sëñ Babacar sëñ Pape Malick cofeel gi moom loo xam ne yàlla bàgg ko. sëñ Babacar. cofeel gi mu cofeel gi man fekkewu ma digal ma sëñ Babacar. mais cofeel gi ma gis mu am la sëñ Babacar surtout bés bi ñu war a ñëw yoo xam. am benn nit bu ko wax ne que ndax dangay non mu war a ma jaare si. sama yaay gaañu. ñu war dem États-Unis si ouverture Zawiya bi nekkoon New York dem ne kilifa laaj ko ne xanaa da nga New York mooy sama benn taalibe sëñ Babacar bu jaxasewu ko ak waaw kon su ma la déggee ñoom ñaar ñu bëggante waaw ñaar ñu bëggante la ëpp bëgg sëñ su bëgg waaye maa ngi wax nañu bëgg sëñ Babacar bëggoon na ko ba loolu sant sant sëñ Babacar sëñ Babacar. wallaahi alazim dafa bëggoon sëñ si si xolam. bu gisee ku sopp sëñ Babacar bàyyi faaram la. day nekk sa bàyyi faar. service loo mu taxaw. moom daal nañ ko ñaanal yàlla. yàlla na yàlla doole leeral. bokkam ñu jigéen ñi mu fi bàyyi. dañu bokk sëñ yàlla na leen yàlla teg loxo. yàlla guddal seen fan. may leen wér defal leen wér li ma euh, li xalam demoon na bay ñaar moom ba dox moo ñu dal ci moom waaw ba nit ñi yaakaar si la yàlla si la yàlla bañe yàlla ni bañ na moom moo xam la yii la ca moom waaye daal yii ma gën a ci moom mooy ñett yooyu ma yooyu ma lim mu mel ni mu mel ni Pape Malick li mu ragaloon dalu ko li mu ragaloon dalu ko ndax ne woon na ragaluma dee waaye dee fàtte ma laay ragal kenn du ko fàtte kon mel ni kon noonu dal incha allah rabbul izzati kenn du ko fàtte du tudd te lii dañuy ñaan yàlla suñu ko deful at mu def di ko def par ñaari at yàlla mot li loolu la ñuy ñaan yàlla kon nag au passage au passage ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ziara jamono tal Hadj Malick yëpp di leen nuyu jiital ci si nekk ci bopp bopp famille bi sa sëñ Fallou si Mansour uh-huh. euh, di ziar Alhaji mm-hmm. waaw di nekk le gis euh, sopp ñu sopp muy Serigne si Sy mës na yónni benn mag ndar fat fat fa jaaroo ni mag mi dama ngi jëriñ ma jaaral mag mi dem jëri jaaral bay ñu benn waa ji bëgg Serigne Babacar nekk ci pont pont ndar bi di waxtaane sëñ Babacar bay lox mag mi ñëw am na am na lu jógee sëñ Babacar ma ko woon ni mu doon mag mi ni ko lan la mu dindi morceau ko wan jaaral bi saa yi bëgg ko jaaral bi paa bi dawalee loxo bi ba jaaral bi ko ci biir ndox mu afale mu ne man su ma demee lan laay wax Serigne Babacar man ma yónni jaaram tool yëpp mu yóbbu ko ma koy wane ba nit ba kooku ba mu dugg ci ndox mi xaw a ñagas ndax xamul lu wax Serigne Babacar bi mu ñëwee ba ci buntu Sall mu taxaw di xaar Serigne Babacar recevoir ko ni muy ñëwee Serigne Babacar ñu recevoir ko Serigne Babacar ñu mu ñëw ba tibb Serigne Babacar seen ci loxo Serigne Babacar jaar xaqiqa bi sëñ Ba waxoon ko mu jël ci loxo waaw daal mu ne jaara ji moo delloon sa loxo moom laa ñu fekk sëñ Ba ko di ko di ko wëndeel ci loxo loxo bi di ko commencé xalaat ci xelam sëñ Ba ko ni ko diw moom ni ko naaw mu ne ko sa taalibe di réer yow ma xeer kooku sa jaara moom laa ñu ko yow daaw kon kon boobu boo ko defalee nii rek jaar kon tabaaraka allahu nekk lay ñaan yàlla yàlla gën a ko def sa fan yàlla yàlla gën a sàmm yàlla yàlla gën a wattuloo kon rendez-vous rek le 11 mars fii ñu xadara. am naa fin janvier donc dinaa leen ko. incha allah ah. bu dajalee coordination bi. di def benn xadaratul jumaa di def xadaratul jumaa le 11. ñaan yàlla yàlla def ci réew mi jàmm dàq fi mbas mi bu ñu waxee Dakar nag bu ñu waxee sëñ Hadj Malick ni lébu gi ndax ñun ñaar nii lañ def. Mm-hmm. sëñ Hadj Malick bu yaatoo fi ci Dakar. Mm-hmm. lébu gee ko yaatal. sëñ Babacar bu yaatoo lébu gee ko yaatal ak ñu fi kilifa yu bari ñu fi nekk lébu gee leen yaatal. daañu doon Dakar. ñi ngi ko ñi euh, ngi ko patronné nag. le grand jaraaf du Cap-Vert. le grand jaraaf du Cap-Vert. jaraaf yu Sundoy. jaraaf yu Sundoy. moom lañ ko patronné. moom lañ ko patronné. moo au conseil de la collectivité de. moo au conseil de la conseillité. collectivité de du Cap-Vert. du Cap-Vert ñoom lañ ko. ñoo ko dégg noonu muy suñu suñu papa yooyu jaraaf yu Sundoy ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla taxawu ko moom yàlla yàlla sàmm ko. ak le haut conseil. de la collectivité de la collectivité Léopold di Cap-Vert. kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yóbbu leen ak jàmm ci bis bi. di ñaanal maam Umar yàlla yàlla la. le douze nekk li nga xam ne moom mooy takkusaanu Serigne Babacar ba waaye nag rendre hommage ki nga xam ne mooy Serigne Pape Malick Sy. waaye feddali seen kóodër ak seen diggante waa kër Cheikh Seydi Hadj Malick Sy kon ñoo koy wax mbokk internet bi ngeen bàyyi ko xel mbokki Sénégal mbokki àddina mbokki Afrique mbokki Europe. yéen ñëpp fii ci Wakaam ci kër Maam Mor Gueye nekk cité Cheikh Seydi Hadji Malick Sy fas yéene waaja nga xam ne mooy le onze jëm le douze ak beneen bi nga xam ne mooy programme après koor gi seen seen sëriñ ba seen xarit ba Mawlaaya Abdoul Aziz Al Amin moo leen ko jàppaloon bu ñu waree samedi bu jiitu ba ci tegu dañu fas yéene ziara papa maam Umar nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi tabaarakallahu programme bi ñu koy dugal ci programme mu kër gi fa tabarakallah xam naa loolu ñu war a waxtaane te xam naa loolu tamit li ñuy suba moom dina ko dox xam ne dina ko ànd ak ñoom kon ñoo ngi jéeglu ñëpp ñoo ngi baal wax ñëpp yéen a ngi woon fii na Salam Vision fii ci Wakaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Tidiane laaj ma ko bi may ñëw laaj naa ko sëñ Babacar sëñ Babacar ne xamoon naa ni di nga dem asfiya boo demee ni leen cheikh ay majmaul bahrain mooy aynu inayatin bi wirasatin min min hati rahmani wa tawatarat rutabun lo min badima rutabin bila hasrin wala